mu doon ab doomu sénégalais waaye nag mu yor nationalité espagnole kii di Moudada Ramos moom nag mu ngi juddee foofee ca Santa Cruz de Tenerife nekkee foofee ca Espagne ca Espagne boobee sax fa la juddoo ginnaaw ba mu nekkee Real de Madrid comme gardien de but waaye nag waa Real de Madrid jox ko ñi nga xamante ni ñooy Racing de Santander Racing de Santander boobee sax nekkee ca Segunda Division B Segunda Division B boobee sax mooy équivalent à la division 3 bu Espagne ki nga xamante ni euh, mooy. Mouhadida Ramos moom nag mu ngi am si ñaar fukki at ak benn ba mu ñëwee sa club boobee sax di 2016 jamono joojee sax la kii di Zinedine Zidane club boobee di Real Madrid waaye moom nag di doomu bi nekk foofee ca ba di fa dafa jogante yu ak équipe bi nga xamante ni mooy Real Madrid moom nag di Mouhadida Ramos aale woon nañ ko juróomi at ginnaaw boobee sax kii di espano sénégalais di doomu sénégalais bi nga xamante ni mu ngi joué foofu foofee ca Real de euh, Madrid ginnaaw bañ ko joxee ñii di waa euh, Racing Santander ki nga xamante ni euh, mooy entraîneur Zinedine Zidane bu Real de Madrid dool ko boole ci équipe bu Real de Madrid waaye équipe A bi. loolee sax tax mu gën a gagné expérience si wàllu gardien euh, de but Moha Dida Ramos moomee sax aale woon nañ ko foofee ca Birmingham City si atub 2019 2020 Birmingham City nekk foofee ca Angleterre ginnaaw ba fa jógee ñu aale ko foofee ca Real Union du Real Union boobee sax nekk foofee ca Espagne waaye nag sa division 3 euh, Moha nag Dida Ramos moom nag doon ab doomu Gaynde ñaay bu ñu war a suivre ndaxte doon gardien bi nga xamante ni mën-mënam kenn naa table wu ko waaye ñii di waa Espagne nanguwuñ koo bàyyi euh, benn yoon di wax rek di kii di euh, Moujadida Ramos moom ab doomu espagnol la si loolee sax ñii di waa équipe national bu euh, Sénégal ñu ngi suivre xale boobee ndaxte lu muy def mën na ko loolu ñu fàttali leen nag ki nga xamante ni mooy doomu Gaynde Njaay boobu di wuyoo si turu Moujadida Ramos moom nag bokkoon na si équipe bu première bu Real de Madrid nga xamante ni waroon na góolu si ay match yi nga xamante ni amoon nañ amaloon nañ ko foofee ca Espagne ginnaaw ba kii di Keylor Navas ASC waaye nag loolee mujjul antu ndaxte kii di Mouhadida euh, Ramos dafa ndawoon loolu pour mu taxaw si euh, gardien yi si loolee sax euh, kii di Navas blessure ba yàggul loolu sax moo tax kii di kii di Mouhadida Ramos mu góolu ci ci équipe A bu Zinedine Zidane si loolee sax lañ jël doomu génn ñaay boobu di Mouhadida Ramos joxe ko foofee ca Racing Club bu Santander jamono ji mu fay def ay jangante yu am solo loolu nekk foofee ca segunda division B équivalent à conclusion